وفي الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي سنت سني بروم سبحانه وتعالى مني ورسجل نو دجوات ci ab néegam su fiyee ne jël benn bind ci wàllu fiq suñu boroom subhanahu wa taala bokk na màndarga yam jagleel waa aljanna mooy da leen di xamal seen diini rasul salallahu salallahu alayhi wa sallam mu ne man yuridi llahu bihi xayran yufaqihu fi ddin yàlla kum namm ci yow yiw dalay xamal sa diini ñuy doon sukkandikoo ci téere bi nga xam ne dañ ko tëral muy tënk lépp lu aju ci diini na doon ci lañ cay gëm lañ cay jukkoo lañ cay tegginoo lañ cay jëfe ci ibaadaat yi ak lañ cay jëfe ci jëflante yépp ki ko bind di cheikh aboubacar aljazairi rahimahullah muy minhajul muslim ñu ko doon topp ba suñu boroom ci ay dëppaleem dëppale ñu ak bunt bay jàngale koor mu tombe ak weeru shaaban nga xam ni bu dul woon loolu it bunt buñ mënoon a nekk dañ ko tëb dal ca koor par suñu boroom yàlla dëppale ñu ci yàlla nañuy dëppale ngërëmam àdduna ak allaaxira kon tey mooy fukk fan ak juróom ñaar ci shaaban ci 1443 di dëppoo le 20 mars ci 2022 bunt koor yi jëloon nañ ci ba yegg si woon tey dañu tuddee almadatu sabia fi shuruti sawm naam almadatu sabia fi shuruti sawm wa xukmu sawmi musafir mi ngi noonu naam mooy juróom ñaareelu bind bi rek ci wàllu koor chapitre sept bi naam su dee bokk nañ ko gis day wax ni fi shuruti sawm sharti koor wa xikami sawmi l musaafir aw wa xukmi sawmi l musaafir lay atteeg koorub koo xam ne daa nekk ci tukki wal marid ak ku feebar wa cheikhul kabir cheikhul kabir ak koo xam ne nii dafa mage ci at wal xaamil wal murdi ak koo xam ne daa ëmb wala kay nampal li jëkk mooy shurutu sawm lan mooy charte koor charte boo ko déggee mooy loo xam ni su manqué jëf de yàqu na buñ la waxoon masalan bokk na ci charte julli ak tahaar mooy laab charte koor yushtaratu fi wujubi sawmi ala al muslim an yakuna aaqilan baaliga charte yay tax ñu ne kii koor war na ko mooy jullit boo xam ni daa ànd ak xelam ba pare majeur li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rufi alqalamu an salaasa yàlla day teggi na xalim ak responsabilité ci ñetti ñii anil majnuni xatta yafiq ki nga xam ne daa teqale ko xelam ba baa muy ximmi ca teqali ko xel googe wa ani naim xatta yastayxiz ak ki nga xam ne day nelaw ba baa muy yeewu ci nelaw yi wa ani sabi xatta yaxtalima ak teggil nañ ko xale ba baa xale boobee di tëdd di gént naam mbokk kon suñu boroom subhanahu wa taala lii di responsabilité jaamu yàlla farataalu ko ci ñetti ñi jullit bu teqali ko xelam su julliwul woorul amul benn bakkaar bu koy topp ca loola kiy nelaw ku mel noonu it bakkaar du ko topp te jii bokk na ci bakkaar yi gën a garaaw gën a garaaw sax naan sàngara lu nekk mooy waxtu julli bi jot na nga bàyyi ba julli gi paase ci julliwuloo mais bu dee koo xam ne yàlla da koo nattu woon mu nelaw ku mel noonu da ngay gis ni kenn du ko toppee loolu xale bi it bu dee dafa nekk xale ñàkk julleem ñàkk wooram yooyu yépp yàlla du ko ko toppee ba ba muy tëdd guddi gént ne bi mu géntee ànd ak jigéen wala jigéen ànd ak góor yëg ni am na ndox mu génn ci moom yi mën yow loolu képp ku ko def xamal ne yow majeur nga ku mën yu génn ci yow rek yow majeur nga mi ngi noonu bu doon soxna saa moom bu gisee direct règle it dañ naan majeur na loolu lépp bu ci amul sa karawi naq bi heure bu feeñee dañ naan majeur na gannaaw ba nag mu wuute ci race yi am na ñoo xam ne quinze ans seize ans ba am na ñoo xam ne sax seen majeur mën naa jiitu loolu wala mu gën a yéex loolu wa in kaanat muslima su dee ne kay kookee daa nekk jigéen julit yushtaratu laha fi sixati sawmiha an takuna tahiran min dammi alxaydi wa nifaas jigéen moom balaa koorama wér fokk day laab ci deretu règle ak dereti wasin du dagan ci jullit jigéen mu ànd ak règle ba pare ne day woor ngi mel ne rek kii nga xam ne nii jant bi soowagul mu ne day julli tis timis ah loolu kenn du ko def jigéen it du ànd ak deretu règle wala deretu wasin du woor li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi bayaani nuqsaani diini almara alaysat ida xaadat lam tusalli wa lam tasum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy leeral manki diine jigéen dafa leen waxoon ni ndax moom bu gisee règle du julli ci du woor te da daan wax jigéen ñi bari leen di def istixfaar di gën ay sarax gisuma kenn ku gën a manqué ci yéen diine kenn ci jigéen ñi laaj ko lu tax loolu lu tax loolu mu ne ko yéen jigéen tey jii da ngay gis ne bu bu ngeen àndee ak baax du ngeen julli donc jigéen mën na toog weer sept jours yoo xam ne nii du ko julli plus de trente julli yoo xam ne du ko julli daganul mu julli ko te du ko julli du ko fay weeru koor it dana woo dana jot moom du woor doonte ni koor googu moom da koy fay doonte ni koor googu moom da koy fay loolu kon mooy lu jëkk léegi beneen bind bu ndaw bi nekk ci suufi bind yu mag yooyu mooy almusaafir lan mooy attey ki nga xam ni dafa doon koo xam ne dafa tukki ida saafara al muslim masaafata qasr heure boo xamee ne nii ab julit daa tukki ci temps ci guddaay boo xam ne nii mën na caa wàññi wa hiya samaniyatu wa arbaina mila ca loolu day nekk dañuy tuddee quarante huit miles lu ci bëri mille boobu dañ ko doon kii ay un kilomètre six cent ngi noonu ala kulli xaal la ëpp ci borom xam-xam yi dañuy jàpp ne soixante dix kilomètres la ak lu demee noonu doonte ne ne heure boo xamee ni nii tukki na ci tukki bu toll noonu ruxisa lahu shaari' fi lfitre ala an yaqdiya ma aftara inda xudurihi heure boo nekkee ci tukki loo xam ne dañ koo tuddeb tukki moom joxe fi benn chiffre waaye borom xam-xam yi juyoo yu bari bari lañ am ci loolu waaye la kulli xaal lépp lu ñuy jàpp ne ab tukki la yow mii nga xam ni da nga caa nekk dañ ne yombalal nañ la kenn waxula bul woor comme niñ ko waxee soxna su ànd ak règle waaye dañ ne yombalal nan la ci bu la neexee dog sa koor heure boo dellu siwaate na nga fay ko li qawlihi taala wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar suñu borom nee na képp koo xam ne da nga feebar wala nga nekk ci tukki mën na jël idda bu tol ne la waroon a woor ma woor ko ci yeneen i bis gannaaw ba nag summa huwa in kaana sawmu fi safar la yashaqu alayhi su dee woor ca tukki ma du ko sonal fasaama mu daal di woor la kaana ahsan loolu mooy la gën a rafet wa in kaana yashaqu alayhi fa afdara kaana ahsan su dee koor ga da koy sonal mu dog loolu mooy la gën a rafet li qawli abi said alqudri radiallahu anhu كنا نخذو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر من ñun day daanañ ànd ak yonente bi alayhi salaam ci weeru koor di def jihaad am ñenn ci ñun ñu woor ñenn ña dog seen koor fala yajidu saaim ala al muftir ki nga xam ne daa woor du yëg ne ki dog kooram daa gàttanlu wala al muftiru ala saaim ki dokkooram du yëg ni ki woor daa ëppal summa yarawna anna man wajada quwwatan fa saama fa inna zalika xasan ñu gannaaw ba saxaaba yi dañoom gisoon nañ ñi ki nekk ci tukki ñu yombalal ko na dog su amee kattan ci mën a woor mu woor looloo gën wa yarawna anna man wajada dafan fa aftara fa inna zalika xasan te it ñu gis ni koo xam ne tukki ga gis nga ci ak lompañ nga dog loolu mooy li gën su ko defee lii mooy atte bi gën a digg doomu ak borom xam-xam yi ci li ñuy wax ci ndax shahru ramadan nga tukki woor ca moo gën wala nga dog moo gën mazhab yooyu ku nekk am na boo ca jàpp waaye li gën a digg doomu lu ñu la mën a wax ci tukki daal mooy su dee ni tukki ba amulu la benn coono tey jii nit ñi tukk ci ay avion di tukk ci ay auto climatisé amoo ci benn coono ci weeru koor nga nga nga woor mooy la gën amaa nag bu dee coono dikkal na la ci tukki bi moom dog mooy la gën mi ngi noonu bu dee ne almarid waa ji feebar ida marida al muslim fi ramadan nazar jullit heure bu feebaree ci koor day xool fa in kaana yaqduru ala sawm su dee ne feebar bi it teewu ko mu woor bila mashaqatin shadida saama bu dee ne feebar bi day koor gi du ko indil jafe-jafe bu tar day woor wa in lam yaqdir afdar su dee ne nag amu ci kattan mu mu dog suma in kaana yarju bur'a min maradihi al bu demee ba nga xame ne nii jàpp ne ne dana wér ci feebar bi fa innahu yantaziru xatta al bur'i suma yaqdi ma aftara fihi su boobaa day xaar ba baa muy wér fay lam wooroon wa in kaana laa yarju bar'uhu afdara wa tasaddaqa an kulli yawmin yuftiruhu bi muddin min taam ki nga xam ne kon dafay jàpp ne sama feebar bii la du feebar buy wér kon day daa di dog kooram fexe nag bés bu nekk mu sarxee lii bërëb ceeb bu ci mënoon teg tuuti mooy la gën ay xafnati qamh mooy ñaari loxo yu ñu dajale sol ko ba mu fees ak blay ndax ñoom blay lañ daan lekk waaye ndakaaru ceeb la ñuy lekk li qawlihi taala wa ala allazina yutiqunahu fidyatun taamu miskin suñu borom nee na ñay woor ca koor ga di leen sonal day nañ jotoo ci la nga xam ne mooy leen miskin su ko defee mbokk duñ ne ku feebar rek na dog kooram waaye feebar ñaar la feebar boo xam ni teewul mën ngaa woor ak moom kii tànk mooy métti bëtam mooy métti wala lu ko mën a dal ci feebar yi mais koor gi moom du am benn effet ci moom kookee mu wóor mooy la gën heure boo yëgee nag ni sama feebar bii day koor ci dafa may sonal rawatina ñi médecins yi di jox ay garab ñu war koo jël ay trois fois par jour ak yu demee noonu loolee nga dog koor ga mooy la gën gannaaw ba nag ñaari feebar daa am feebar bi nga jàpp ni lii day dina wér ku mel noonu da ngay noté jour yi rek su la yàlla wéralee nga fay ko nank-nank ba mu jeex feebar boo jàpp nag ni dañ laa condamné waliyaasu billah yow mënatoo woor kon ci biir koor ga ngay def su boo waree woor nga génneel ko la nga xam ne mooy liibarub ceeb ci la gën a néew mi ngi noonu ñetteel bi ci wàllu googee mooy asheikhul kabir mooy mag boo xam ne magee na ida balaga almuslim aw almuslima sinnan min asheyxuuqa la yaqwa maahu ala sawm aftar julit heure bu demee góor lam jigéen yegg ci âge boo xam ne munu koo booleti ak koor ku mel noonu day dog wa tasaddaqa ala kulli yawmin yuftiruhu bi muddin min taam bis yam dog bés bu nekk mu sarxeel ko la nga xam ne mooy liibarub ceeb ci la gën a néew bu ko yokkoon mooy la gën ci moom mi ngi noonu li qawli ibnu abbas radiallahu anhuma jëree wax yi ibnu abbas ja ruxisa li cheikh al kabir an yutima an kulli yawmin miskin wala qada alayhi ki nga xam ne daa mage ba kawe bés bu nekk day leel miskin ca loolee amul lum cay fay su ko defee tey jii ñooñu mel noonu loolu ñuy wax ci liibar ba bu ko mënoon yéege ba ab kilo nga xam ne bu weeru koor jotee rek day jël trente kilos sarax ko ay miskin loolee koor ga da koy wàcc te it mbokk loolu lañ xamoon ca sahaaba ya te it loolu la borom xam-xam ya ëpp ca ñoom wax maa ñi naan da ngay boole ndékki la ak añ la ak reer la ak yépp jox ko loolu ci wax yu tumuranke la la nga xam ne moo la borom xam-xam yi di ubbee mooy la ñuy génne zakatul fitre loolu la ñuy génne heure booy jotu ci sa koor loolu du la zakatul fitre saa ngay génne amma bu dee ne bis yi ngay fay ci koor borom xam-xam yi dañ caa wuute entre muddu ak nisfu saa looloo tax ba la gën ci yow nga yóbbuwoon ko ba def ko un kilo loolu heure boo ko génnee na sa xel dal ci ne la la yàlla santoon moom def nga ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam ñeenteel bi mooy alxaamil wal murdia ki nga xam ne daa ëmb wala kiy nàmpal ida kaanat almuslima xaamilan fa xaafat ala nafsiha jigéen heure bu ëmbee mu ragal ci bakkanam ne man kat su ma wooree dana dana ma lor aw ala ma fi batniha aftarat su ragalee it ne lii ma ëmb day su ma wooree mën na loru su boobaa day dog wa inda zawali al uzr qadat ma aftarathu heure bu demee ba lor ga teggeeku mu fay la nga xam ne nii da koo dog wa in kaanat muusira tasaddaqat maa kulli yawmin tasumuhu bi muddin min qamhin su dee ne bokk na ca ña riche ay ña sa loxo jot seen gannaaw ñu am heure buy fay bés bu nekk bu bu waree da koy booleeg sarxe lii di mudd mi ngi noonu muy diggante liibar ba kilo mu sarxe ko ca lu waa dëkk bay dundee xam nga mooy blé boobu bu doon Sénégal nga ne ceeb. fa yakuna akmal allaha wa azama ajra mu ne loolu mooy la gën a mag gën a màgg ci pay doonte ne loolu borom xam-xam yi dëppoowuñ ci dëppoowuñ ci te la ëpp tegtal mooy jigéen su dee dafa dokkooram ngir ëmbam wala nàmpalam bis bu koy fayit day fay rek waaye comme dafa am yenn borom xam-xam yu naan bu dee ne doom jaa tax mu dokkoor ga imma ba mu ko ëmbee wala ba mu koy nàmpal waaye du ne moom ci boppam moo am problème pour woor ñu ne kon buy fay da koy génneel waale lii di njot googee mi ngi noonu waaye incha allah jàpp nañ ne bu fayee ay bisam it loolee def na na ko yàlla santoon mi ngi noonu mu ne wa hakaza al hukmu bi nisbati ila murdi'a idha khafat ala nafsiha atte bañ wax ca ka ëmb atte boobu la ñuy wax ca kay nàmpal su dee ragal ne ne ni su ma wooree du ma am soo bu ma mën a nàmpale suma doom ji wala boog su ma koy nàmpal nàmpal gi dana ma lor aw ala waladiha wala muy lor doom ja walam tajid man turdi'ahu lahu laha ca amul kenn kum ko jox mu nàmpalal ko aw lam yaqbal ghayraha wala boog doom ji nangul nàmp keneen ku dul moom wa hadha al hukmu mustanbitun min qawlihi ta'ala atte bi ñoo ngi ko génnee ca wax yàlla ja wa ala allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ña nga xam ne day dañ koy def ak coono lañ jotoo lii di leen miskin fa inna maana yutiqunahu buñ lay wax maana yutiquuna ay yutiqunahu bi mashaqatin shadida loolee mooy ña koy def mooy mën nañ ko def waaye buñ ko defoon dana leen sonal ñu mel noonu fa in hum aftaru xadaw aw atamu miskinan mi ngi aw atimu miskinan mi ngi noonu heure boo xamee ni nii yow da nga nekk ca la nga xamee ni ni mooy kaa bu mel noonu su boobaa da ngay dog mi ngi noonu aw atamu miskinan ñu daal di leel la nga xam ne mooy miskin ca bis yi nga dog boo dee fayoo ko tanbihan mu ne ñaari jenneeku mi ngi nii bi jëkk man farrata fi qada'i ramadan bi dunu uzr ki nga xam ne daa saggane fay bi si kooram ya paase ca amul ngant hatta daxala alayhi ramadanun axar baba muy dugg ci moom beneen koor fa inna alayhi an yutima makana kulli yawmin yaqdiyahu miskinan ku mel noonu bis buy fay fekk tegale na ñaari koor day joxe la nga xam ne mooy leel miskin naam loolu borom xam-xam yi wax nañ ko doonte ne dëppoo wuñ ci ñaareel ba man maata min al muslimin wa alayhi sawmu qadaahu anhu waliyuhu ki nga xam ne daa faatu ci jurit yi ci yoroon borub koor ku mel ni ay péetéem ay jegeñaalem dañ ko ko fayal li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man maata wa alayhi siyaam saama anhu waliyuhu ki nga xam ne dafa faatu te yoroon bari koor ngalawaay na ko ko wooral ay péetéem mi ngi noonu wa qawlihi liman sa'alahu qaa'ila noonit la ko waxe ca ka ñëwoon di ko laaj inna ummi maatat wa alayha sawmu shahr sama yaay de daa faatu ca waroon na ko weeru koor bu mat sëkk afa aqdiihi ndax loolee mën naa koo fay anha cib ñeel ko qaala naam fa daynu llahi axaqu an yuqda borom yàlla bi day moo gën a yey ci ñu fayal ko ko loolee mbokk mi ngi noonu la nga xamee ne nii da ko waroon a fay mi ngi noonu borom xam-xam yenn nii dem nañ ba cay dolli sax ne soo yégee ni am na bis yoo xam ne dafa dogoon ca moo ko tey nga fayal ko ko rek yàlla ci yërmandeem bu ko nangoo mën na ko ko baal wallahu alam naam lii mbokk kon moom mooy aju ci ñi nga xam ne koor daa jot ci islam may leen ñu bañ a woor suñ faree fay wala ci biir koor ga ñu joxe fidiya boo xam ne mooy remplacer koor googee yaakaar naa su dee ne amu ci tamit question bu aju ci loolu mën nañ dem directement ci arkaanu sawm lu dul koo xam ne liñ doon wax ni léegi am na lu ko ci lënt dem ci arkaanu sawm naam bismillah naam waala kulli xaal pour ne da ngay boole de li ngay xam ne nit ki da koy bëgg a boole ak ceeb bi loolu mbokk ay ijtihaad yu ñuy def la waaye la xewoon jamono yonente bi alayhi salaam ak i sahabaam borom xam-xam yu wax ko mooy booy joxe zakatul fitre ndax da nga ciy boole lañ koy lañ koy lekke lañ lañ koy toggee la wallahi mooy zakatul fitre bi ngay joxe booy joxe it jotu koor yow ceeb ba ngay jël jox ko ko moo xam da koy sumbi moo xam lu mu koy def waaye du ni yow da nga war a jël jox ko lu bu ànd ak ceeb bi li ànd ak ceeb bi amul amul amul nattuwaay kee yaboy lay booleeg ceebam kee keccax kee ay ganaar lay booleeg moom léegi ana ban nga ko ci jox ala kulli xaal la nga xam ne daal moo rot ci sunna mooy ñam la ñuy génne zakatul fitre ñam la ñuy génne la nga xam ne nii moom mooy li nga xam ne mooy jotu lu dul ni borom xam-xam yi wax nañ ci tamit tey jii boo ko woowoon jox ko mu lekk ba suur wala ci restaurant ba nga fayal ko ticket restaurant loolee da ngay gis ne teggeeku na la wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal kon ñu jël la nga xam ne mooy juróom-ñetteelu bunt bi almadatu samina te mooy fii arkaani sawm yan ponk la koor am wa sunanihi yan sunna la koor am wa makruhaatihi yan mbir lañu sib ci aji woor di ko def arkaanu sawm hiya ponki koor mooy lii bi ci jëkk mooy anniya wa hiya azmu alqalb ala sawm te mooy dogo xol ci woor imtisaalan li amrillahi azza wa jalla ngir dëppoog jëfe ndigali yàlla mu tedd ma ca màgg aw taqarruban ilayhi wala nga yéene ci jege yàlla ci yërmandeem li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam innama al amalu bi niyat rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na yéene ye nee na jëf yépp ca kaw yéene yi lay tegu fa ida kaana sawmu fardan su dee koor ga kooruk farata la fa niyatu tajibu bi layli qabla alfajr fokk yéene ba day nekk ca guddi ga balaa fajara jot li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man lam yubayyit sawma qabla alfajr fala siyaama lahu koo xam ne fanaaniwul woon yéene ne damay wooru suba ku mel noonu bu fajar xise ba jot mënatu la woor wa in kaana doonte ne ni fala sawma lahu fala siyaama lahu la muy firi mooy bisu keroog boobee baaxul waaye day woor bu dee ramadan la dana woor bis bi waaye bis bi da koy fay wa in kaana naflan saxaat walaw baada tuluu il fajr bu dee koorug naafila nag koor ga dana wér même bu dee fajar jot na wartifaa il nahaar même bu dee bëccëg ba kawe na in lam yakun qad taima shay'a su dee ne kay lekkul dara ba fajar jotee ba léegi li qawli aisha radiyallahu anha aisha day nee na daxala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zaata yawm yenente bi dugg na sama néeg benn bis fa qaala hal indakum shay ndax am ngeen fi dara tey lu ñu mën a ndikkee qul naa laa ñu ne ko déedéet yow mu yàlla yónni dara fanaanul ci kër gi qaal fa inni saa'im mu ne kon day maa ngi nekk di aji woor tey loolee mbokk mi ngi noonu wane ni rasul sallallahu alayhi wasallam këram nga kër gu xawoon a métti la yàlla ko tànnoon jagleel ko loolu ngire mu nekk royukaay ngir ñëpp mi ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam kon mu ne man dama woor loolee mu wane bu fa dara nekkoon mu lekk kon fan la yonent bi sose kooram mooy ca bëccëg ba la ko woo la ko sose parce que lekkul dara mi ngi noonu ñaareel bi ci sunna yi ci ci ponki koor yi bokk al imsaak wa huwa al kaffu an al muftiraat fi al akli wa shirbi wa jimaa ñaareel bi mooy téye sa bopp te koor du lu ñuy def koor mooy li ñuy bàyyi koor mooy loo rek koor moom bàyyi rek la amul looy def ca mooy téye sa bopp ci bañ a lekk bañ a naan bañ a sëy loolu mooy ñaareelu ponk bi ñetteel bi mooy azamaan mooy temps bi nga koy defee wal muraad bihi nahaar lañ ca jublu mooy bëccëg ba wa huwa min tuluu il fajr ila xurubi shams mooy fi fajar jote ba baa fa jant bi di sooy fa law saama imraun laylan wa aftara nahaaran lamma saxa sawmahu abada ki nga xam ne daa wóoroon guddi gi yépp bëccëg bi mu dog ko kookee kooram baaxul li qawlihi taala summa atimmu siyaama ila leyl matal leen seen koor ba baa guddi di di jot kon ñetti ponk yooyu am na ñoo xam ne ñoom dañ koy tënk ci ñaar rek te mooy koor daal ñaari ponk la nga yéene koor téye sa bopp ci lekk ak naan diggante fajar ak timis mi ngi noonu bu dee ne nag lii di sunanu sow ana yéen sunna lañ tëral ci koor wa hiya ta'jilul fitr bokk na ci sunnay koor teel a dog suñ koy wax nag mooy gannaaw ba jant ba sooyee wa huwa al iftaar aqba taxaquqi al gurubi shams mooy nga daal di dog fa nga yégee ne jant bi sono li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaam nee na woon laa yazaalu nnaas bi xayr nit ñi day duñu dañ mukkoo di nekk ci aw yiw maa ajalul fitr fi yéeg ña ngay gaaw a dog mi ngi noonu te mooy fekk dog ba jot na wa qawli anas radiyallahu anhu inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yakun yusalli al-maghrib yonent bi day daawul nekk mukk di julli timis hatta yuftira walaw ala sharbati ma daawul nekk di julli timis lu dul na dog na même bu doon dafay góox góoxum ndox balaa dem julli timis day dog ñaareelu sunna bi kawnul fitri ala rutab aw tamr aw ma mooy heure bay dog nga dogee tàndarma bu tooy wala nga dogee tàndarma bu wow wala nga doge ndox wa afdalu hadihi salaasa awaluha la ca gën mooy lañ ca jëkk a wax mooy tàndarma bu tooy ca tàndarma bu tooy dafay am rawatina yaram bi bu toogee toute la journée lekkul la nga xam ne nii mooy la ca nekk dañuy soxla tuuti sukkar yu leen xaw a yee bala ñoo dem di lekk yu diis mu ne wa axiruha adnaha wa huwa al ma la ca gën a suufe mooy ndox mi ngi noonu ca loolu itamit jur yi war ci bàyyi xel boo wooree da ngaa war a jëkk a lekk tàndarma bu tooy ba gën gannaaw wow boo amul nga naan ndox lu bari xale yi nag ñoom dañuy profité yor kaasu café miisu mburu di yaakaar kii rek ñu commencé lekk mais loolu baaxul même ci wàllu wér-gi-yaram da ngay lekk tuuti tàndarma bàyyi organisme bi di yeewoo nànk-nànk ñu ngi noonu soo paree nag nga lekk la la neex kon wa yustahabu an yuftira ala witr bëgg nañ lañ cay def nga tóolal ko salaasun aw xams aw sab'in li qawli anas ibn malik mooy nga lekk ñetti tàndarama wala juróom wala juróom-ñaari tàndarama ngir yi la anas wax ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuftiru ala rutabat mi ngi doon ala rutabati qabla an yusalli yonent bi de daana doge ay tàndarma yu tooy avant muy julli fa in lam takun fa ala tamarat su ko amul nag mu jëfandikoo tàndarma yi wow fa in lam takun xasa xasawatin min ma su ko amul mu góox ay góox ci ndox loolee kon mi ngi noonu ñetteelu sunna bi du'a indal iftar heure bay dog nga ñaan is kaana sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ila fitri yonent bi daa daan wax heure bu daan dog allahuma laka sumna yàlla yow lañu wooral wa ala rizqika aftarna ci sa wërsëg lañ jóge fa taqabbal minna yal na nga ñu nangul suñu koor innaka anta samiul alim yaay aji dégg yaay aji xam donte ne xadis boobu am na lu ca borom xam-xam yi wax waaye mi ngi noonu wa kaana ibnu omar yaqul ibnu omar moom daana wax ne allahuma inni asaluka bi rahmatika allati wasiat kulla cheyin an taxfira li zunubi ibnu omar moom bu daan dog danaan ah yàlla maa ngi lay ñaani sa yërmaande bi nga xamee ne nii moo peeg lépp lu mën a doon ci nga jéggal ma samay bakkaar lii mbokk liñ ciy gis yépp da doon xadis ya wér naag daif la doomu aadama bi heure boo jógee ci jaamu yàlla la gën moom mooy ngay baril jéggulu sa borom jéggulu sa borom dana la dàqal ak rëy dana la dàqal yëg sa bopp nga xam ne lii la yàlla la ko sant te wóoru la ndax defe nga ko nam ko gërëme wóoru la ndax ndax nangu nga ko loolee kon mooy feeñ ci boole mi jaamu yàlla ba julli gi ñu sëlmal léegi la gën ca la ñuy wax mooy astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah donte ne borom xam-xam yi am nañ tuuti ixtilaaf ci kii ñaan li yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne aji woor heure biy dog may nañ ko bis may nañ ko ñaan gën dul delloo ndax fi muy waaj a dogee la wala fi mu dogee ba pare mi ngi noonu am na ñoo xam ne dañ ni da ngay dog ba pare ñaan am na ñoo xam ne dañ ne fi ngay waaj a dog ngay ñaan doog a dog ñu qiyaas ko ci julli ñaan yi nga xam ne da nga koy ñaan ci biir julli da nga koy ñaan gannaaw bu sëlmal mi ngi noonu mi ngi noonu la kulli xaal sëñ càmm boo bañee tiwaay bu jaraw la booleel ñaar yëpp rek waaw bala ngaa dog ñaanal boo dogee ba pare nga ñaan mi ngi noonu kon donte ne am na beneen lu ci rot donte moom indiwu ko fii te loolu la borom xam-xam yi gën a wéral mooy zahaba zama wabtaluyut al uruq wa sabata al ajr insha allah la nga xamee ni mooy kii ba dem na mar ba ma maroon dem na mi ngi noonu wabtali wabtaluyut al uruq lii di sama sujjit yi tooy wowoon yépp nekk na loo xam ne lu yi wowoon yëpp léegi tooy na te yool ba rot na loolee moom la chaque ne ku koy wax moom da ngay dogg pare doog ko wax ndax mun loo wax ni put gu tooy na ci dogagoo mi ngi noonu ñeenteel bi mooy asuxuur mi ngi noonu am ñuy wax asaxuur wa huwa al aklu wa shurb fi fi saxar mi ngi noonu mooy nga lekk ca njël aaxiral lay ca mooy ca guddi gu mujj ga nga lekk lekk goo xam ne yaa ngi ci jublu bi nii ci sowm yaa ngi yéene ci lekk gi ab xëdd bu lay jàppale pour bëccëg nga bañ a xiif li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam inna fasla ma bayna siyaamina wa siyaami ahli alkitab mooy akalatu saxar lay suñu différence ñun ak chrétiens yi ak yahudi ñoom duñu xëdd ñoom duñu xëdd bu ñu lekkee guddi rek pare nañ ci wa qawlihi tasaxaru fa inna fi sahuri baraka yonent bi it mu ne dee leen xëdd ndax xëdd barke da cee nekk église jullit ñu bëri duñu xëdd bu ñu guddee ñu lekk ba seen biir fees rek ay ca duñu duñu xëdd parce que day bañ yàq seen i ñelaw waaye mbokk xëdd jaamu yàlla la xëdd it dafa lay dimbali ci nga bañ a am li ñuy tuddi des repas trop distancés bokk na li médecins yi di wax naan lekk yu sérieux de trop mën na créer ay ulcère gi dema noonu kon bu dee ne tey da nga réeroon masalan dix heures ci guddi wala neuf heures nar a enchaîné waat ba suba ci sept heures loolee da ngay gis dafay gudd looloo tax ca njël ga nga am même bu doon ay tàndarama ngay lekk wala benn banaana wala am ndox ngay naan ala kulli xaal nga jagleel ko ab xëdd bokk na ci taxiiru saxuur mooy yéexe xëdd ba ila juz il axir min al leyl ba baa cër bi mujj ba ci guddi li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tazaalu ummati bi xayr ma ajjalu al fitra wa axaru saxuur sama xeet bi day duñu dañ mukk ci yiw fii ñi ngi yéexe xëdd di teel a dog ñu ngi noonu yéexe xëdd di teel a dog wa yabtadi waxtu saxuur min nisfi leyl al axir xëdd nag buñ koy wax mooy genn wàllu guddi gu mujj ga lu ko jiitu ab reer lay doon waaye genn wàllu guddi gu mujj ga mën nañu wax masalan suñ demonte ji ba ay une heure du matin su boobaa la ko féete kaw loo fa lekk lañ koy tuddee xëdd wa yantahi qabla al fajr ma ngay jeex nag fa fajar di jote bi daqaiq ci avant muy am ay minutes li qawli zayd ibn sabit radiallahu anhu ndax zayd day nee na tasaxarna ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñun day ànd nañu ak yonent bi xëdd summa qaama ila salaa gannaaw ba yonent ba jóg jëm ca julli ga fa qultu kam kaana bayna al azan wa suxuur ma ne ko waa bi ngeen di xëdd ak bi ñu ngeen di jóg julli temps ba lan la qaala qadru xamsiina aaya mu ne lu ñu mën a jàng loo xam ne nii juróom fukki aaya la ca loolu mbokk julli te jamono ba mu montul xewul xam naa ni day nekk entre ay dix minutes du ko sori ndax il faut nga xool aaya yi gën a digg doomu ci alxuraan nga jàng ca cinquante mi ngi noonu loolee mooy la nga xam ne mooy mooy la ca gën waaye tànk xaaju gu digg jot na rek su boobaa la ngay lekk moom ab xëdd la koy tuddee lu jiitu loolu nag moom ab reer la tudd mu ne mi ngi lay indil benn gendeeku tanbih man shakka fi tulu'il fajr lahu an ya'kula aw yashraba hatta yataqiya hatta yatayaqana tulu'al fajr ki nga xam ne yaa ngi sikk sàkka ci ne fajar jot nam jotul sikk sàkka googu mën nga caa lekk naan ca boobaa mu lay leer summa yumsik waaye nag gannaaw ba nga arrêté li qawlihi sal li qawlihi taala ndax baram bi moo ni wakulu washrabu xatta yatabayana lakum alxaytu al abyad min alxaytu al aswad min alfajr dee leen lekk di naan ba mu leer leen la nga xamee ni nii moom mooy bum gu leer bum gu weex ga ci bum gu ñuul ga ca fajar te loolu mooy ba penk bi weex sowu ba ñuul ngeen mën a xàmmee weexaayu penk ba ak ñuulaayu sowu ba waqad qiila li ibnu abbas radiallahu anhu fenn waay ñu ne ci ibnu abbas ne ko inni atasaxaru fa ida shakaktu shakaktu amsaktu man day dinaay xëdd su ma demee ba sikk sàkk ma arrêté fa qaala lahu kul ma shakakta xatta la tashuk mu ne ko lekkal loolu ngay sikk sàkka ba baa ngay bañ a sikk sàkkaati kon mbokk julit incha allah xam naa dañuy yeme ni foofu ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal nañu yàlla yeggale ci ramadan wërsëgal ñu dund ko nam ko gërëme ca nanguluñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain góor goo xam ne dafa naan soow soxnaam lan la lislaam wax ci loolu la gën a digg doomu lu ñuy wax mooy loolu mbokk lu ñu sib la lu ñu sib la góor di def loolu doonte ne ni waxuñu ne ni dafa doon lu xaram xam ngeen ne am na lu tumuranke lool ci yenn gisin yoo xam ne jàpp nañ ni góor bu nàmpee ci jigéen ak waxtu mum fa mën a nàmpee kooke da koy xaram doonte ne loolu lu tumuranke la la gën a wér mooy xaram gaa nga yem ci ñaari at yi waaye comme am na ay yenn borom xam-xam yu gis loolu yow góor wax dëgg yàlla magam jëmm mën nga am feñeen foo mën a amee meew moo naan bu dul di jël sa meew soxna bi muy nàmpal soo dem di ko naan ala kulli xaal mi ngi noonu daal lañ ca mën a wax mooy loolu ñu sib la wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam ala kulli xaal mooy weeru koor bale desoon na ci ay bis yu mu wóorul weeru koor bi jot na moom weeru koor bi lay woor su paree yam amoon bor ca weeru koor bale passé mu daal di koy fay moom nag li mu wax dane su dee ne ngànta teewoon mu fay ko kooke day woor rek jeex na mais bu dee càgganteem moo taxoon ba onze mois yi ko yàlla ma yëpp fayu ci boru kooram ba beneen koor fekk ko fa heure buy fay bés bu nekk da koy génneel fidiya boo xam ne ni moom la koy booleel wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam ah ala kulli xaal suñu borom moom day wax innamal amalu bi niyaat donte ne nit ki ndax mën nañ ko forcer mu woor loolu moom beneen affaire la ala kulli xaal yow su war a gor en tant que borom kër wala en tant que baay su dee wóor na leen ne njaboot gi am nañ boru koor koor gaa ngi ñëw ci amuñu benn ngant war nga leen laaye biir ñu woor te it la gën mooy ñu laaye leen biir waxtaan ak ñoom ndax koor moom jafe naa contrôler doomu aadama bi yàlla rek moo mën a contrôler ay jaamam amma moom ci boppam su dee ni moom koor gi neexu ko ku mel noonu du woor boo demee it bu demee ci bis ba mën a naan ba xolam sedd mu dem mu jeex waaw amma nag bu dee ne forcé nga ko yow na ko fayal fay ba moom nag mu jóg di fay ca yàlla tax forcé ba nga ko forcé du tee yàlla nangul ko kooram googu waaye moom bu ko neexul moom kenn mënu koo woorloo koor moom suñu borom mu ne maag sama jaam bi ñoo ko séq maa koy fay ndax li ko mën a yàq dafa bëri même que wóoroon ba yéene na wóoratuma sax koor ga yàqu na même bu lekkul dara yaa ngi dégg loolu kon kon yàlla rek moo ko mën a sàmm wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam ki nga xam ne dafa dog jàpp ne jant bi sono gannaaw ba moom fekk ne jant bi sowul loolu yaakaar na wax nañ ko ci dars bi passé lañ cay wax mooy la gën a peek mooy na fay bis boobee ki di asma bint abi bakar nettali na benn xadis nee na ci jamono yonente bi alayhi salaam mas na niis ñu toog toog ba ñëpp jàpp na jant bi sono nee na ñu daal di génne ndab daal di dog gannaaw ba rek jant bi nag sañaat mais mu ne yonente bi salaa sallam waxuñu ñu fay xadis boobu borom xam-xam wax nañ ci lu bëri mooy yonent bi waxu leen ñu fay waaye it waxu leen bu leen fay te cosaan ba mooy suñu borom nee na woor leen ba jant bi so te ñoom bi ñuy doog jant bi sowul deuxièmement aussi xadis la boo xam ne nii asmaa lu taawit loolu la daal moo tax ba borom xam-xam yi moom la gën a dal xel rawatina mazhab Malik ñoom dañ naan ki nga xam ne daa dog te jant bi sowul mu jàpp na jant bi sono mu lekk naan ku mel noonu amul benn bakkaar waaye nag bis boobee da koy fay loolu mooy la gën a peeg wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam waaleykum salaam wa barakaatu la gën a digg doomu la ci borom xam-xam yi wax mooy ki nga xam ne wàcc da koo not loolee kooram yàquwul mais ki ka tey wàccul boppam kooku kooram yàqu na loolu mooy la ci gën a digg doomu mi ngi noonu mi ngi noonu loolu mooy la ci gën a digg doomu daal nga xam ne jëlee nañ ko ci ibnu abbas radiallahu anhu doonte ne ne am na ci ñoo xam ne nii ñoom dañuy gis ne koor la koy yàq mooy lay dugg waaye du lay génn waaye daal la gën a digg doomu daal lañ wax mooy bu la koor gi bu la wàcc bi bettee mënoo ci dara mu génnal boppam loolu dara nekku ci mais bu dee yow yaa dugal sa loxo di def ay effort ba génne sa wàcc loolu day yàq sa koor loolu mooy la gën a diggalam lañ ci wax wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw waaleykum salaam wa rahmatullah naam dafa am ci benn dëkk bu bëggul lu dul borom ci Afrique dañoo xewaloon góor ñi di namp seen jabar yi nampal ba affaire bi dem ba ci gouvernement dañ mujj jël benn décision juridique juridique pour imposer góor ñi ku ci nampati nañu ko
waaw ala kulli xaal bon doomu doomu aadama yi moom xam nga ni seen couleur yi wuute seen melokaan yi wuute noonu la seen xel wuute waaye wax dëgg yàlla daal comme niñ ko waxee fonkulum góor moom wax dëgg yàlla de amoo looy def lu dul di nàmp sa do sa soxna loolu moom beneen mbir la ala kulli xaal mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw bismillah naam waaw naam naam mu ne dane booy woor bëccëg bi lay woor maanaam boo waree bëccëg bi du du du wér.
waaw woon son tool bi maanaam parce que woon weer bi weeru koor bi foofu ah parce que nit ki bay na mu ne moom tey dafa jënd mu ne weeru saabal lay woor xam nga woor bi woor bi du wér.
moom day wax ponki koor na doon chaban lam koor lam koor ba mën a woor koor ba mën a woor la nga xam ne mooy euh, mbir bi mooy day am yéene ba pare nekk bëccëg ak koor gu mu mën a doon naafila ak farataat yi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam lu dul ay cas exceptionnel mooy ñu yàlla nattoon ñu dëkk ci pôle yi nga xam ne ñoom seen guddi normalul seen bëccëg normalul ñooñu ñoom da ngay gis natt yi ñuy natt mën na am guddi la ñuy woor ndax ñooñu ñoom ay cas spécial la mais daal suñu borom yàlla dogal na li ëpp ci jaami yàlla yi fi ñu dëkkee am nañu ay bëccëg guddeeg bëccëg donc bëccëg bi ngay woor wallahu subhanahu wa taala alam naam mbokk jullit yaakaar naa kon ñu mujjee ci mbokk bi rek incha allah naam naam incha allah produit biologique ala kulli xaal nit ki foo mën a liggéey ak liggéey bu lu mën a doon soo amee pause kay mën ngaa mën ngaa julli mën ngaa julli mën ngaa jàngal quran loolee moom dara néewu ci sa pause moom yaa ko moom ci liggéey bu mu mën a doon donc nga profité ci jàng ci alquran wala julli ca bu dee waxtu julli jot na loolu da ngay gis ne lu baax lu rafet la produit biologique yooyee même bu doon te ne dafay liggéey ci loo xam ne nii dañuy jàpp ne sobe la sax bu dee ne moom dem na jàpp ba set sori ko loolee ci ci pause am dara nekku ci waxumaa nag bio produit biologique yooyu jàppuma lenn ci sobe lu ci nekk mbokk mi ngi noonu kon wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain